Disponible uniquement chez Orange. Voir conditions en détail sur le site orange.sn. Orange, meilleur réseau 4G+ du Sénégal.

parler de, de Deep donc, et, euh, et, sa nomination. Et puis vous aurez euh, le son du jour qu'il va décortiquer en laboratoire. Ce sera tout à l'heure. Et il va vous parler de tous ces programmes qui se préparent pour le mois de décembre. Vous savez, c'est un mois explosif. Au Sénégal, Mary Bay dans Yehoutech va nous parler d'une nouvelle application qui s'appelle Nopalais. Donc ça va nous reposer on va suivre euh, la première séance d'entraînement de nos lions au stade Lajor et Aïssatou Faye Fall est de retour pour nous présenter un livre, l'agenda culturel et, et puis euh, la journée de la de l'écrivain. Ce sera tout à l'heure Leen, mais on va passer au téléservice en commençant euh, la météo. Donc ce matin, Dakar mi ngi yeewu ak Tamba euh, fi gën a féex nag tey Ziguinchor la ak Kolda ndax ñoom ñi ngi yeewoo 21 degré am nañu 23 degré à Kédougou 25 à Kaolack 22 à Saint-Louis 24 degré à Podor température yi dafay grimper dans l'après-midi à Dakar dinañu am 28 degré moo nar a féex tey ci euh, journée bi euh, sinon Saint-Louis dina am 33 degré ñu am 35 degré à Ziguinchor 37 à Kolda 38 à Kédougou 39 à Kaolack 40 degré à Tamba ak Diourbel 38 degré à Linguère Podor 36 degré Matam moo gën a tàng tey si euh, ngoon gi ak 41 degré euh, pour euh, suñu marée yi horaire u marée yaa ngi bi jàll na c'était à 8h13 bi ci tool topp ce sera à 20h35 et puis pour marée basse yi benn bi amoon nañ ko à 2h03 du matin bi ci topp ce sera à 14h20 meilleur moment pour dem napp pour suñu mbokk nappkat yaa ngi nii entre vingt heures cinquante ak minuit cinquante beneen bi ce sera entre seize heures neuf et dix huit heures donc euh, ku nekk nappkat mun nga dem géej heure yi mais bu leen fàtte seen gilet de sauvetage parce que sinon moom du baax dara ci géej gi nga xamante ne amul fenn fooy jàppandu en cas de wuyaay yooyu le soleil. mi ngi yeewu tey à 7h09 du matin et il va se coucher à 18h38 minutes voilà li moo nekkoon euh, seen météo du jour comme ni ma koy waxee jël leen ko rek def ko seen porte-monnaie yóbbaale ko mu servir leen waxtu julli yee ngi nii pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu mbokk jullit yi suba ñi ngi ko julli woon à 5h50 du matin Tisbar dinañ ko julli à midi 58 Takusaan à 16h 19 minutes Timis à 18h58 et puis Gée dinañ ko julli à 20h 1 incha allah pour suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ne ñoom ñooy dem messe cathédrale euh, am na messe à 7h ak 18h30 de l'Ouganda 6h30 du matin ak 18h30 église Saint-Joseph am na messe à 6h 18h30 donc bu fekkente ne da ngeen fa bëgg a dem heure yaa ngoo ko ku ci yore xaalis bëgg ko changer taux de change yi ñoo ngi nii 1 dollar mi ngi toll ci 598,815 francs CFA 1 euro ci 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling ci 731 virgule 670 francs CFA un yuan ci 83 virgule 8243 francs CFA euh, un dirham ci 61 virgule 7325 francs CFA one dalasi mi ngi toll ci 11 virgule 8585 francs CFA bu ngeen yore xaalis dem di ko wecceeku mun ngeen basé wu suñu tableau bi comme ça mu servir leen euh, pour ngeen mun a changer seen xaalis Euh, pour ñi bëgg information bu leen fàtte dugg suñu site igfm point sn tey ñu ngi titré euh, Kapi donc daal di euh, def Sénégal Congo ce qu'il faut savoir sur l'infirmerie des Lions donc blessé yi nga xamante ne moom la ñu am ci biir tanière bi la ñuy waxtaanee et puis teg Cheikh Kouyaté ak Idrissa Gana Gueye ci une bi am na yeneen actualité yoo xam ne mun nañ ko fekk ci biir igfm point sn mu jëm ci wàllu politique sport sport société people mun ngeen fa am ay vidéo wala actualité internationale donc bu leen fàtte di fa dugg parce que comme nous vous le disons nous informons juste et vrai et comme ni ngeen ko seetloo ñëw nañ lu bëri ci entraînement wu Lions yi nga xamante ne ñu ngi préparer euh, qualification fii si euh, euh, Coupe d'Afrique des Nations 2021 bi nara am fële ca Cameroun ñu continuer toujours Mamadou Ndiaye ak revue des titres bonjour ñu commencé ko l'observateur qui titre recours aux marchés financiers régionaux et internationaux ce que cachent les emprunts obligataires répétés de l'État du Sénégal. mbirum économie la loolu la observateur xëyee tey ci xëtu mu njëkk ak natalu Macky Sall président de la République mu wax ci euh, État du Sénégal un véritable gouffre financier maanaam euh, li nga xamante ne loolu lay euh, wundu wala jëriñ ci diisaayu. Euh, kopparu euh, état du Sénégal ak li nga xamante ni loolu la ci gëstu bu yaatu bi observateur def beneen euh, xëtu observateur li ñu xëy tey gis ci observateur muy avenir politique bi nga xam ne mooy ki nga xamante ni moom lañ tabb bu yàggul envoyé spécial du chef de l'État muy Aïssata Tall Sall moom mi nga xam ni opposante la nekkit nekkoon opposante ñëw ci pouvoir bi ambition wala ak euh, ndëgg sërëxal maanaam piège bi nga xamante ni tegaluñ ko ko loolu la observateur xëy ak yeneen i xibaar mbirum drogue ak mbirum euh, Euh, arrestation yi nga xam ne defoon nañ ko fële ci euh, munition saisie bi nga xam ne def nañ ko fële ca euh, Pekes ak coowal li nga xamante ni mooy drogue beeg lii la mbir réew mi loolu la ñuy gën a seetlu tey ci xëtu yéenekaay bii di observateur. Aïssatou Tall Sall toujours dans le quotidien avec Mariam Soda suppléante de ATS de député à député. maanaam mën nañ jàppoon moom sax mooy suppléante maanaam numéro 2 bu ay Tall Sall moom député bi nga moom kii di Mariam Soda Ndiaye. Euh, maanaam euh, nëbbul li nga xamante ne ñàkk d'accord gi mu ñàkk d'accord Aïssata Tall Sall mi nga xam ne li mu dem rejoindre lii de euh, lii di parti au pouvoir bi maanaam waa APR moom da koy déclaré wax na ko nee na j'assume mes propos loolu la quotidien xëyee tey ci xëtam mu njëkk mbirum politique la Vox Populi on peut lire euh, emprisonné depuis plus de six ans au Cap Manuel la santé de Habré inquiète waaw Hissène Habré nekkoon fi président Tchad nekkoon fii ci gannaaw mu daw làqu fii ci Sénégal ñu tëj ko ba mu boobaak léegi mat na juróom euh, juróom at moom Hissène Habré euh, wérgu yaramam actuellement loolu la avocat yi wax médecin yi nee nañ euh, mënatul ñu denc ko fële ca kaso ba moom Hissène Habré mi nga xam ni bañ ko tëjee léegi mat na 6 ans. Enquête revient sur la régulation des marchés <coughs> publics et titre les errements de l'ARMP. l'ARMP loolu la enquête xëyee maanaam marché yi nga xamante ni moom lañu mooy xew ci fii ci Sénégal moom la enquête xëyee tey def ci gëstu gëstu bu yaatu. dans l'As on peut lire une embellie dans la grisaille. waaw mbirum euh, journaliste la ak euh, seen euh, code de la presse beeg ak yi nga xamante ni moo gën a yaatu loolu la waa l'As tey xëyee tey def xët bu njëkk gind def ci ay gëstu bu yaatu ci mbirum journaliste yeeg code de la presse bi nga xamante ni mooy xew fii ci àddina ak ci Sénégal. Le Soleil, euh, on peut lire dessus Mohamed Boun Abdallah John au forum Bloomberg. L'intranet gouvernemental sera davantage sécurisé. moom euh, kii di euh, Mohamed Boun Abdallah John la xëy xëtam bu njëkk daan di Soleil def ci gëstu bu yaatu ak moom yi nga xam a nekkoon na fi ministre premier ministre fii ci Sénégal gannaaw ba ak mu ñëw jege lool gouvernement bi gëstu bu yaatu la ci waa Soleil lii di yéenekaay bi di Soleil def tey ci xëtam bu njëkk. Dans record, on finit euh, en sport et puis on peut lire dans record regroupement des Lions Sadio débarque ce mardi. waaw tey Sadio Mané moom mi nga xamante ne mooy attaquant Liverpool bi tey lañ koy xaar. Euh, fële ca Saly gannaaw ba mu dem euh, séance d' bi ci bu 18h jotee mais huis clos la démb séance d' entraînement bi ñu amale woon Sadio Mané teewewu ko ak mook ñeneen ñetti joueurs yi nga xamante ne ñu ngi leen fas yéene xaar. loolu la record xëyee tey ci xëtam bu njëkk Sadio Mané tey lañ koy xaar tey ci talaata ji entraînement huis clos beeg Moussa Ndiaye ak Nabi Sarr maanaam ñi bees ci tanière bi démb seen première séance d'entraînement ok merci beaucoup Mamadou Ndiaye li mooy jeexal information yi dañuy ñëw léegi euh, daal di ànd ak euh, suñu coach Mans dans quelques instants mais en attendant on vous propose le son du jour Pape Diouf Paris Dakar vous êtes bien dans votre émission Yeewu Leen c'était la page publicitaire qui passait comme ça donc merci beaucoup à nos partenaires qui nous soutiennent depuis que Yeewu Leen et Yeewu Leen sama gars yaa ngi toog mais du ma waxagum ak ñoom instant yi coutumance laay jàkkaar lool parce que tey euh, dafa ñëw indi li ñu tuddee renforcement avec bande de résistance qu'est-ce que c'est coutumance bonjour. jërëjëf Bijou ginnaaw bi leen di nuyu Sénégal yëpp comme ni nga ko waxee donc bande de résistance la maanaam. pour ci mhm. gàttal. donc muy loo xam ne mën nañ ko yóbbu fu nekk donc euh, c' est pas encombrant non plus. Mm-hmm. donc mu indi beneen euh, xeetu liggéey euh, te pourtant day liggéey lépp loo xam ne charge da koy def muy musculation yi. Mm-hmm. donc oyof na ba pare mouvement fonctionnel yi nga mën a def yëpp ko ci yi nga bëgg da nga ko ci def. Mm-hmm. donc ñu gis ni lu intéressant la ñu indi ko proposé ko te respecté ni pour ñu varier seen ay type de travail Mor nag moo def ma teel a araftu balaa nga <laughs> ñu xool reportage <laughs> Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour donner le meilleur programme possible pour vous afin de vous aider à mieux, à vous améliorer dans les salles de fitness. aujourd'hui, on a jugé nécessaire donc de varier un tout petit peu donc les outils de travail. Donc on, a, on avait travaillé avec la barre, on avait travaillé euh, avec des, des, on avait travaillé avec des ballons, mais aujourd'hui on va utiliser des élastiques. Donc les élastiques, on va les utiliser pour quoi Pour plusieurs raisons. Non seulement pour intensifier le travail, augmenter le niveau de difficulté et engager encore des muscles qui vont rester sous tension du début à la fin de l'exercice. Raison pour laquelle aujourd'hui, Mas et moi, nous allons vous montrer quelques mouvements, donc quelques exercices, donc polyarticulaires qui vont aller dans ce sens. Voilà, Mas est déjà en place. Donc les jambes écartées largeur des épaules. Donc avec les élastiques donc, ancrés donc, au niveau de la voûte plantaire. Donc là, il est en position donc, active, poitrine haute, ok, bien serré. Et là, qu'est-ce qu'on va faire un squat suivi de presse, épaule. Vas-y, Voilà, hanche vers l'arrière et vers le bas. Et là, presse, épaule. Donc ça s'appelle squat presse. vas avec les élastiques, ça va créer une résistance. La résistance, elle est continue en fait. À tout moment, le muscle est sous tension. À tout moment. Donc vous avez donc, les jambes qui sont actives. Vous avez le bas du dos, l'extension au niveau donc, des, des, du bassin, donc l'arrière est, est sous tension. Vous avez les abdos qui vont maintenir donc, le pouce droit. Et vous avez les épaules qui vont empêcher l'élastique de tomber. Donc finalement, c'est un mouvement polyarticulaire qui va travailler ensemble de muscles. Alors vous qui nous regardez dans les salles de fitness, donc intensifiez vos programmes, variez donc les jours de travail, ça vous permet donc d'atteindre vos objectifs le plus La dernière masse, excellent, relâchez, voilà et soufflez. Voilà, parfait. le travail va continuer donc avec euh, toujours renforcement bas et haut combiné avec les élastiques. Cette fois-ci, aller faire donc les pentes arrière dynamique et statique suivi de presse, épaule. Voilà, donc en position forte, actif, d'accord Là, il va poser la jambe gauche vers l'arrière, descendre, la, la, règle de 90 degrés, 90 devant, ramener la barre, ramener en la jambe, voilà. La jambe loin derrière, voilà. Euh, le genou arrière, descendez, suivi de presse, voyez Donc une, ça demande quand une certaine coordination, bras et jambes. un pas, flexion, extension. Parfait. Ça fait combien On va décortiquer en, tempo. Ça une, deux, trois et quatre. Voilà. Maintenant, nous allons passer de la fente dynamique à la fente statique. vas sans faire bouger la jambe. On descend et on On descend et on Parfait. Là, vous pouvez terminer votre série avec des fentes statiques. Ça enflammer les jambes, enflammer les épaules. Parfaitement, stop. Bravo. Voilà, la combinaison sur les jambes et les épaules va continuer, seulement ici nous allons travailler euh, à y associer tout simplement l'élévation frontale avec les élastiques. C'est juste ça qui a changé. D'accord avec masse en position debout, prise en pronation. là, il va faire une élévation frontale pour engager donc, le faisceau euh, de l'épaule. Vas-y Mars, du deltoïde. Voilà, en bas et en haut. Voilà, vas-y Mars, encore en bas. Là, vous pouvez avoir 2-3 secondes de maintien et vous revenez à la position initiale. Parfait. Une et deux. Pour que la tension continue, vous pouvez rester là, sans autant relâcher carrément les bras. Voilà. La flexion donc du genou n'est pas verrouillée vers le haut. Vous gardez une légère flexion en haut. Voilà, pour demeurer la tension du à la fin du mouvement. La dernière masse, stop, bravo, excellent travail. Yes, sir. Avec élastique, c'est l'élastique, de masse assorti avec le débardeur. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, c'était avec euh, Coach Mor, renforcement avec bando de résistance. Mais euh, Coach Mass, est-ce que mun nañ ko euh, jël suñu band élastique rek dem di taayu suñu ay tànk ak suñu ay loxo di dugal di xëcc. waaw loolu moo tax ma def élément bi pour wan leen euh, quelques exercices euh, pour dimbaleen leen ci loolu. bandi nag bëri na ay bëri na ay ay niveau. Mm-hmm. donc selon niveau d' entraînement nit ki ak euh, selon aussi euh, compétence mm-hmm. donc bandi boo xoolee résistance bokkul mm-hmm. donc euh, dafa faible am na yooyu faible yoo xam ne pour débutant yi la am na yoo xam dafa diis gan nag comme bi ma xaw a yëkkati ni keroog xaw naa diis waaw parce que dafa mel ni day am doole de day am doole looy gën a taw yi muy gën a diis moom waaw donc boo xoolee aussi te si ñal na c' pas encombrant mu nga koy bu fu la neex mun nga Euh, euh, de euh, donc toujours aller voir un professionnel même bu fekkente ne mën nga ko utiliser sa bopp il faut nga am base yi d' nga am base jox la technique bi pour nga mën pour nga bañ cee jëlee ay blessures. Mhm. pour nga mën optimiser résultat yi ci. merci beaucoup coach donc rendez demain pour beneen Yeewu Sport. fu ñu la mën a fekk en attendant. Olympique Club de Dakar Corniche Ouest. d' merci beaucoup coach Mass ak coach Mor les deuxièmes ci sport bi nga xamante ne moom la ñuy indil euh, tous les jours ci yeewu leen comme ni ma leen ko doon waxee tout à l'heure c'est c' est le retour de Aïssatou Paye et tout à l'heure elle va nous parler livres et agenda culturel bonjour Aïssatou. bonjour Bijou. bienvenue avec ton beau collier. merci maa ngi nuyu seetaan di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi comme ni nga ko waxee on va parler de Marine Rawone yéen ñëpp. on va parler de livres euh, comme tous les mardis daañu waxtaan tamit euh, démb la ñu tëj li nga xamante ne moo doon journée internationale euh, de l'écrivain donc daañu jéem a def ab bilan bu ndaw ak euh, Euh, Alioune Badara béy bi nga xamante ne moom mooy président association écrivain du Sénégal dinañu wax itam ci wàllum grand carnaval de Dakar invité nañ leen xam ngeen ne dañu xawoon pousse date bi ndax euh, gàmmu bi nga xamante ne moom la naroon tombeel léegi nag ñi ngi ko fas yéene def du 22 au 24 novembre madame fatu Kassé Sarr ànd ak Tam Ndiir nara ñëw fii tey ñu waxtaanee si xew-xew gu mag googu nga xamante ne euh, dafay jaay ak wane li nga xamante ne mooy suñu aada ak cosaan si fànn yëpp bijou ce sera tout à l'heure Aïssatou et puis en culture aussi on peut euh, parler de musique avec Exidex e dans Sunu Musique voilà merci Bijou donc euh, di nuyu rek téléspectateurs yi ak ñu ñu bokkal plateau bi comme ni nga ko waxee rek tey on va parler musique euh, particulièrement de l' artiste Dip bi nga xamante ne moom il a été nominé ci benn catégorie euh, foofu ci Côte d'Ivoire donc on y reviendra tout à l'heure waxtaane aussi vidéo bu bees bi mais sinon dinañ waxtaane tamit événement yi nga xamante ne ñu ngi leen dëkkmal euh, ci mois de décembre bi donc déjà mu nekk weer boo xamante ne dañu bëree événement lool lool lool macha allah. mais am na ñu ci jot a ràññee yu ñu ci jot a seppi euh, tel que show of the year at Nit Dof donc euh, muy date boo xamante ne leen ko jox euh, tout à l'heure ak les détails mais aussi dinañ leen waxtaanee beneen événement aussi muy El Hadj Keita l'enfant de la Médina donc moom it moo am aussi son événement le 24 décembre aussi dinañ ko waxtaanee bi ci kanam mais bijou Ce sera tout à l'heure. Il y a l'événement de DIP au stade ainsi que Carlou D qui prépare son grand théâtre. décembre moom wax nañ leen ko bu leen neexee ngeen di génn du premier au 31 day neex fii Sénégal décembre Dakar va descendre. Dakar day wàcc ba combien. zéro. <laughs> ci kanam lay doon ak programme yi am ci biir Dakar bi yëpp ci mois de décembre bi ak Exidex Mado va nous parler d'une nouvelle tendance Oui, bijoux. It's glowing. Yeah, it's glowing. That's <laughs> true. léegi à force de vous fréquenter, je commence à voir <laughs> bon l'accent, mais pas parler encore anglais. ne. <laughs> donc euh, maa ngi lay nuyu di nuyu. mbokki téléspectateur bi ak ñi bokk plateau bi. Hmm. symbole ngay defaraat. non dañuy génn ñoom ñaar dañoo namante woon xam nañ recommencer <laughs> donc comme ni nga ko waxee rek on va parler de tendance en esthétique comme ni nga koy waxee chaque année am na yenn yoo xamante ne day nekk nouveauté donc li xew moom la ñuy duppee lu baby glow. Mm. baby glow mu nekk benn technique boo xamante ne xeetu soin de visage la mais ça consiste à mettre li nga xamante ne moom moo di maquillage wala fond de teint ci li di sa kanam pour donner plus d'éclat ou plu de bien-être. ok ci kanam dinañ découvrir lan mooy baby da ngay bàyyi ndekki bi nga ñëw filmer yow Khadim. <laughs> mairie la ñuy waaj a wane nii. ñii di lañ nekkee ak moom. waaye yow ah mairie du yow <laughs> mi ngi ci mairie. d' accord Merry tout à l'heure euh, dinañ waxtaane dinañ waxtaane dinañ waxtaane euh, benn application bu bees bu tudd noppale effectivement Bijou maa ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateur yeewu leen yëpp donc euh, tout à l'heure on va parler d'une application qui s'appelle noppale noppale nag c'est une application qui a été créée par un étudiant pour les étudiants donc bu ci kanamee dinañ euh, dinañ leen euh, tegal élément bi ngeen xam euh, lan mooy noppalee exactement. ce sera tout à l'heure Thior Mania xam nga lan laa bëgg. doo ñëw defoo émission ba pare toog fële di lijjanti nu émission bi di demee soit nga ñëw toog wala nga may ñu jàmm yaa ngi dégg merci beaucoup Maodo Ndiaye sport dina <coughs> bu Lions yi fële ca stade Lat Dior. oui stade Lat Dior bu Thiès dinañ fa dem ci kanam euh, njëkkee dinañ njëkkee yeneen beneen xibaar boo xam ne am na solo depuis ci euh, bi ñu annoncé match bi ak billet yi euh, bi nga xam ne commencé lañ ko jaay démb gis nañu depuis ci ngoon depuis ci suba ngoon gi ba léegi démb ci depuis démb ba léegi gis nga information bi nga xam ne gars ñu ngi koy partagé muy mag mën nañu wane billet yi voilà Euh, sénégal Congo Sénégal Congo lay dajeel démb erreur bi nga xam ne waa service euh, communication bu fédération sénégal bu football dañ def benn erreur bi nga xamante ni c'est c'est gis nga ko presse bi partagé ko biee yaa ngi nii euh, Congo la gis nga drapeau bi ci nekk du drapeau Congo boobu boobu ah. drapeau bi suuf mooy nekk République démocratique du Congo bi nag Sénégal mi ngi fas yéene dajeel Congo Brazzaville mu nekk benn information xam depuis depuis ci ngoon démb ci ngoon ci réseaux sociaux yi moo na moo nag bi yi dinañ ko defar ils ont 24 heures diggante fii ak match bi. ils vont euh, refaire les billets. waaw euh, waaw dañ koy def il faut ñu changer ko parce que lii mën na créer benn incident euh, daje wu ñëw oh, kii. donc attends billet dañoo jot a jaay ay billets wala jotuñu jaay billet jotuñu billet commencé jaay. léegi comment ils vont faire ils vont si bële c'est plus simple. waa ci biir fédération bi yëpp amul ku toog ne bi. <laughs> mais looloo loolu si sa ça le d'ailleurs foofu man pour man foofu la débat bi ne. amul benn nit ci ñoom ñëpp fédération bi toll yëpp. ku ne bii du moom amul kenn ku gi remarqué ne. du bii du moom. li ngeen wax yëpp dëgg la dama leen koy waxee seen bopp rek. ak fi ngeen nekk rek sénégalais non dama suis sérieusement je suis très sérieux sénégalais ni ñu mel. Hmm. fi ngeen nekk yéen. ak keneen bu mu nekk ci beneen entreprise ku ci nekk xool ko ci loolu. Hmm. war a def lu sérieux loo xamante ni porte bi yëpp nii la war a nekk. nag naka lay processus bi di demee war a demee. lu gën a simple su ma la envoyé mail tey tey donc je donne l' exemple ah. Mmh. su ma la envoyé mail d'une manière professionnelle mmh. man ak yow ñu liggéey bu doo sax ubbi mail bi ba di ko tontu. Mmh. woowoo ma wala message yoo ma nga may wax. c' est vrai Sénégal moo mel noonu sénégalais moo mel noonu. en toute franchise bu ñu waxante dëgg on va pas se la face. loolu la sénégalais mel. wax ni nag rigueur bi moo def fépp nag lii. c' est mën nañu ko wax ne. moom moo feeñ c' est un exemple moom moo feeñ mais c' est dans toutes les entreprises c' est dans non imprimeur yow li ngay joxe beneen àll bi mi ngi nii. xam nga ñu ngi wax li nga xam ne mooy problème problème bi mi ngi lay wax. non parce que imprimeur bi il peut juste imprimer. c' est pas à lui de faire design. mi ngi noonu c' est c' est dans tous les secteurs peut-être mënoon na ko remarquer pour dire que du bi mais bon. c'est xamuñu ci dara parce que da Congo bu ci nekk ak benn kii la ñaari yëpp ñaari dëkk la yi nga xamante dañuy bokk ci éliminatoire eh, mais yow xanaa di nga tàppe drapeau Congo voilà non Congo c'est vrai que ne incident lu boo xam voilà sax léegi ils ont combien de temps pour tout changer ah, soit la Dior de Thiès donc euh, yàlla baax na euh, wala def ko ay billets électroniques ay waay Sadio ñëw na ma doo Sadio ñëw na mardi waa waa tey waa tey alhamdulilah mais y' a un système pour man pour man y' a des systèmes mooy bracelet yi ñuy defar pour man moo gën professionnel. am na fi tey ay Sénégal yu ko am alaaji man tey am na ko muy les bracelets. même même même ñoom dañ koy def dañ ci lu ñu koy def ci match Sénégal yi ci match mais dañ koy boole ci kër bi mais dañ koy boole non seulement tu gagnes du temps. ba pare doo tilimal. d'habitude dañ koy boole ci bi sax. Mhm. Euh, léegi bari na ci liñ koy xam mais en tout cas li nekk na li nga xamante ñoom seen bopp reconnaître seen erreur bi euh, li ngeen soulevé aussi. c'est ko ci mais quand même ci équipe bi waroon na mun am kenn ku ne. du bii kii bi. fédération bi pas équipe bi comme bi quoi. waroon na am kenn ku ne du bii. Mhm. mais bon comme demeewul noonu on espère que dans les 24 heures on va pouvoir tout gérer et puis. Euh, ay waay kan moo ñu booleeg Coromba Ndiaye mi doo ñëw toog. mel ni sunu yaay de ci yëf yi. <laughs> mi ngi mel ni yaay xale yi. Sophie tey loo ñuy toggal. bonjour bisou bonjour à tout le monde tey nag benn cocktail de fruits laay def boo xamante ne à base de sorbet lay doon. am na ñu sorbe mangue am nañu sorbe fraise am nañu pêche. Euh, pomme rouge am nañu orange euh, vermicelle multicolore ak sucre ananas ci kanam naka ñu daal di mélanger lépp bisu defal benn cocktail boo xamante ne ni dinañu servir parce que fan yi tàng na trop trop trop sax bisu moo tax tey ma andi cocktail bi nga xam ne moom naa leen proposé. tey rek mu neex gis nga lii ñu wax nii yëpp na dañ ko war a tënk ci. Euh, une heure 57 <laughs> <laughs> 57 plus plus euh, les anniversaires et tout ça donc euh, dina dina sucre sucre bi kay tey dina neex mais balaa loolu dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo ñu bloqué ba ñun ñëpp ñu ñëwandoo heure bi mooy embouteillage yu infernal yi nga xamante ne ñu ngi koy gis actuellement biir Dakar fépp foo dem c'est-à-dire que artères yu mag yëpp dañoo bouché donc tu sais pas par où passer ku ci nekk yaa ngi jéem a calculer naan naa jaari corniche kii naan naa dem foire mais fépp bouché donc xawma euh, lan moo fi solution ak comment est-ce que on peut à un moment donné bouché presque rond-point yu mag yëpp nekk biir te nit ñi war a xëy les artères yi nga xamante grandes artères yëpp gis nga ko euh, muy rond-point bu ci nekk zone bu ci nekk gis nga ko ni li ñëpp constaté nañ ko euh, bu ñuy déplacé wu actuellement suba si gis nga ko fi nga xamante créé embouteillage euh, bi nga xamante ne mi ngi koy mi ngi koy créé li gën a am solo nag bi dañuy jël rek exemple benn bu ñuy jege muy rond-point Yoff bi xamante ne moo nekk Carrefour bi nga xam ne toujours c'est à l'origine des des embouteillages monstres durant les heures de pointe surtout yenn heures yi déjà en temps normal c'était extraordinaire léegi nag bu fekkee heure de heure de pointe yi nag maanaam suba si nga xamante ni ñu ci bari dañuy jógee eh, yeneen côté Padois wala dara di xëy si fii di euh, Almadi ñeneen ñi aussi bu fekkee ay 18 heures moo jot tamit ñu quitté Almadi pour euh, rentrer maanaam ñibbi euh, loolu tamit toujours day créer benn embouteillage am solo démb nag seetlu nañu lu bees maanaam ñëpp xaw ñu ngi doon gis ay travaux yi waajal sax ay travaux yi nga xamante ni depuis ñu ngi ko démarré le 11 novembre démb lañ ko lañ ko démarré fële ca rond point léegi nag jëf defoon nañ ay euh, communica ñi ngi doon communiqué di wane nii di travaux yi dina commencé le le onze euh, bi ñu xëyee nag dem gis nga ñu embouteillage bi dafa gën a yokk léegi nag euh, ñi ku ci nekk nag ñu ngi wax ni xam nga dañu créer ay voies yi nga xamante ni par exemple boo génnee nord Ouest Foire pardon ci amatul amatul jógee Ouest Foire di génn pour rond-point parce que rond-point amatul foofu la travaux yi travaux yi commencé donc pour jëm côté Yoff il faut nga def grand tour nga nga génn ji nale bu fekkee Ouest Foire nga côté Ouest ngay jógee il faut nga génn ji côté euh, rond point euh, échangeur foire bi pour mën a def le tour pour mën a wàcc ñëw ñëw ñëw ñëw ba fii donc amatul rond point Yoff donc loolu nag il faut impérativement mu am discipline ci ñi nga xamante ne ñooy conducteurs yi mais bari na ci nag ñi nga xamante ni teg nañ ay gendarme wala policier ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci mais par teg nañ ay jeunes sax yi nga xamante ne ñooy ASP yeeg ñeneen ñi ngeen c'est que le problème mooy que ku nekk da nga yaakaar ni yaa gën a yaaxamte sa morom et à force de vouloir y aller plus vite que l'autre tout le monde est bloqué mm-hmm. léegi nag au lieu ngeen def une heure pour jàll vous allez faire deux heures deux heures c'est parce que distance bi mi ngi mat 3 kilomètres parce que bu fekkee mën nañu ko jàppee noonu 3 kilomètres yoo xamante travaux yi c'est euh, mi ngi nekk un un kilomètre et quelques euh, ci diggante rond point Yoff beeg pont bi nga xam ne mën lañu ko def c'est juste euh, objectif bi mooy gën a améliorer fluidité am transport bi. Mm-hmm. léegi li nga xamante ne moom embouteillage fi muy commencé presque mi ngi commencé ci bu fekkee nee nga jógee moom dina guddi dina gudd lool côté <laughs> Padois bi pour pour ñëw rond point Yoff bu fekkee heure de pointe yi nag day gën a day gën a. day gën a yaatu dina def environ 3 kilomètres. dina def environ 3 kilomètres yoo xamante ni da ko nar a dugg ci embouteillage donc loolu il faut impérativement discipline ci conducteurs yi discipline euh, rigueur bu baax ci ñi nga xamante ñooy gendarme yi policiers yi parce que parfois ñi nga gis ñi nga xamante ni sama genre gi la lu leen neex la def ci tali bi duñ mën a calculer li leen intéressé rek la moo leen ñor mooy dem dem ci nu gën a mais ñi ngi waroon nañ ko engagé en même temps wax ne la carrément travaux yi waruñu ko woon a engagé non dañ doon defar fii ba mu jeex euh, ba pare doo ko mën a engagé beneen beneen su permettre aussi ñenn ñi di mën di contourner di mën di jaari mm. fi nga xamante ne mën nañu jàpp ni pare na par exemple bu fekkee da nga jël euh, rond-point Yoff foofu li muy jël ci nit heure de pointe dafa dafa dafa bari ak euh, trafic bi day bari foofu heure boobu mais gis nga ñaata ñaata kilomètres wax naa ko sànq 3 yoo xamante ni chaque jour nit ñi di ko def bu fekkee aller retour da ngay liggéey Almadies wala nga fiy jógee à chaque fois donc je pense bien waroon nañu war a mën a engagé nos yi mais toujours c'est c'est c'est bien parce que bu fekkee la ñuy defar selon ñoom wala ñenn yenn maquettes yi ñu ngi koy gis dañuy tax ñu gën a euh, améliorer fluidité transport bi te loolu am na solo parce que Dakar tamit nañu waxante dëgg dafa étouffé y a de voitures euh, voilà trop de voitures te gars yi ni ñuy wax ingénieurs yeeg nga xam ne ñooy dirigeants yi yi tamit comme fédération de foot man tey dem fa romb ay oto yu bare yoo xamante ne dañ ko fa gaare alors que comme léegi ni ñuy changé kii bu fa defoon tali parce ci station bi mooy gën a yomb mais tu es obligé encore de refaire le tour te ay oto yu bari ñu ngi fa mel ne ay mm-hmm. épave la xaw ma je pense que war nañ leen fa mën a jëlee mm-hmm. ñu xoolaat aussi parce que dafa tombé à un moment où taux de kii bi euh, essence bi dafa mm-hmm. gën a yokk donc nous qui prenons les taxis donc dafay servi dafay fayu kuwaat ci effectivement man bu ma doon dem fay par rapport ak extension événement bu tuuti sax bu amee ñu yokk prix c'était 1500 léegi 2000 hier dama mujjee toog fi ba 20h30 j'ai quitté à pour prendre Euh, je suis arrivé à 22h à Liberté 6 extension ak Almadi. Mhm. mais dañu mujjee yokk. non bari na 2500 waxaale moom mi nu ma non je suis désolé il faut nga yokk ko parce que. embouteillage bi tamit booy ñibbisi di nga génn ba ci rompé waaw c'est tout à fait logique donc mhm. nag il faut que je pense que ay ah, ñenn sax ñenn marché parce que démb bari na ci ñoo xamante ni ñuy liggéey je pense que yéen a koy gis ci image nga xam ñu leen koy proposé bari na désormais dañu war a mën a commencer bon du may bëgg trop trop ñuy joxe exemple yi nga xam ne ñu xew yeneen dëkk yi mais ñuy bëgg di xalaataale tamit lan la ñu a mën a xam Dakar dans vingt cinq ans dans ans nan la mën a demee parce que lii mënuñu ci dëkk mm. même bu fekkee dañuy defar pont yi dina baax pour benn de benn durée parce que nit ñi dañuy gën di yokk nit ñi oto day oto yi day gën di bari ñu xool ban situation la benn yan zone sax quitte à ce yenn zone yi sax oto bañ di fa dugg ñu fay jéem a mooy bon ñu def ko route piétonne ma wax benn di niveau bi dañ naan la ñu teg euh, am na ay yoo xamante ne yenn genre oto yi duñu war a jaar si yenn tali yi camion yi respecté duñ ko da ngay gis ne que ne euh, par exemple si benn tranche euh, tali oto bi mi ngi fi créer embouteillage waru fi jaar gendarme ngi taxaw wala policier ngi taxaw mais du duñu duñu ils réagissent pas en fait donc euh, ça aussi c'est war war nañ ci wax sans sans compter dañuy wax oto yi mais borom charrette yi tamit da nga leen fàtte ak nag yi. ku ci nekk ci biir <laughs> c'est-à-dire circulation bi la ñu bokk en tout cas man ce que je dis c'est juste que euh, on devrait mieux penser les travaux quand même parce que tu peux pas une ville comme Dakar boucher grande artère yëpp après nga ne nit yi dem leen liggéeyi et arriver à l'heure tout en sachant que y a des travaux partout ay travaux dañ koy oui travaux yi la plupart la plupart deux ans au minimum un an et quelques là ah deux ans maximum trois ans deux ans comme ça de moom sur les chiffres sur chiffres yi sûrement bu fekkee na sax xam ne lu am solo ralentissement de l'économie ça va impacter parce que nit ñi bu ñu waree jóg sérieusement ñu waree jóg 6 heures. 5 heures 22 mois te moom mooy li ñu njëkk a jox bu njëkk. oui d'habitude quand on dire que. maximum maximum ans. voilà. la limite ils nous ont dit un an et mois maximum 3 ans donc ñu xool chiffres diggante 3 ans léegi bi ñu créé embouteillage yeeg ñu xool d'une manière économique après sûrement parce que chiffres yi ñun tamit Sénégalais dañuy xaw a ragal chiffres mais chiffres yooyu tamit il faut ñu koy génne pour beneen yoon ñu permettre ñeneen ñi nga xamante ni ñoo war jël am yeneen projet yu ni mel ñu teg ko teg expliqué xool yan yan lan moo mën a baaxal amal solo situation population mais dinañ ni ma xaaral ma surement que ni yéenay demande ay yoon yenn demande mi c'est bien weddiwuñu ko mais toujours tamit ingénieur di gën di xalaat tamit yan voies moyens yoo xamante population bi du ko impacté trop trop surtout mhm. suñu économie en tout cas yéen ñi seetaan mun ngeen euh, joxe seen xalaat si travaux yi ak euh, mm. blocage yi nga xamante ne moom lay indi si réseaux sociaux yi soit ngeen dugg suñu Facebook comme ni ngeen ko mun a gisee mu affiché si baaw écran bi wala ngeen yónnee seen euh, message si suñu WhatsApp au 76 928 06 42 Instagram GFM SN donc mun ngeen aussi dugg ci suñu Facebook Télé Futurs Médias moom moo nekk Facebook ngeen joxe fa seen xalaat ci waxtaan bi nga xamante ne moom lañ nekk di amal mun ngeen aussi dem Twitter euh, yeewu leen pour joxe seen xalaat ci euh, waxtaan bi ñu nekk di amal actuellement ngeen wax ñu travaux yi nga xam ne moom la ñuy def nii nii blocage yi mi indi ak lan la nar mun a bloqué ak nan ngeen yaakaaroon ni noonu lañ ko waroon mun a organiser mun ngeen yónnee aussi seen ay vidéo euh, sur WhatsApp il nous reste 48 minutes. oui ce serait bien ce serait bien ñu wane ce qui se passe sénégalais yi nan lay dund wala ñu nekk waaye damay ragal balaa ñoo egg heure bi jeex. <laughs> non mais en fait dañuy teel ñun ñooy ñun ñooy même bu fekkee ñu sacrifié jóg 4 heures du matin teel a taxaw teel a taxaw sur place. ñu mën a ñu mën a wan non ñu jar jar na ko ñu wan Dakar waaye nan la ñuy dund c'est que partout dans le parce que ñu ñu wane ni TFM ñu ko koy ñu wan Dakar Dakar amul problème Ndiaye dem dinañ dem ci embouteillage bi nañu eggaleeg yow en sport ci mhm. première séance d'entraînement des Lions au stade Lat Dior démb euh, lañ ko doon amalee fële ci stade Lat Dior bu Thiès fi nga xamante ni mooy euh, amale fa Sénégal fas yéene jàkkaarloo ko Congo tey euh, mën nañ ko jàpp suba ci bu 19h euh, ñu ci bari nag teewe nañ loolu euh, nga xamante ne mooy euh, séance d'entraînement bi ba mu des ñeenti lion maanaam ñeenti gaynde yi nga xamante ni donc Sadio Mané ñu ngi koy xaar tey en tout cas démb amal nañu séance d'entraînement bu am solo devant le public Thiès waa ñëpp ñëwoon nañu ñu gis nañu ambiance bi nga xamante ni amoon na ci ferveur ci supporters yi mën nañu leen dégteel élément bi nga xamante ni Cheikh Anta ak kii di Sey Latir defaloon nañu ko démb fële ca Thiès surtout réaction ñi nga xamante ni mooy Nabi Sarr juste après est bonne. Euh, content de, de sur, ce stade, devant notre public, ça plaisir. la pelouse Oui, la pelouse, elle est pas mal. Heureusement, elle est pas mal, donc on essaie de, faire avec. On voit que voilà, on essaie de, mettre la qualité, on essaie euh, de l'application. Et voilà. Le moral est bon le moral est bon, le moral est là. On, est, juste le reste du groupe qui euh, va arriver ce Et puis euh, voilà, on est confiant, on est confiant et voilà, on va se donner à fond pour ce, pour ce match. Et quelle, quelle est l'ambiance qu'il a dans le groupe Avec euh, les matchs de, euh, en club euh, le week-end Non, du tout, on a l'habitude, on a l'habitude d'enchaîner de, les matchs en club. Donc c'est vrai qu'on joue mercredi, c'est dans deux jours. Je pense qu'on est prêt, on va se donner tous les moyens pour gagner ce match. Et l'ambiance dans le groupe, l'ambiance dans le groupe et, Elle est toujours bonne, hein, elle est toujours bonne. C'est vrai que voilà, on vit très bien avec, euh, avec le groupe. c'est ce, qui est, c'est ce qui est important. Et euh, voilà, ça, ça, la force de, de donner encore plus. si wolof rek euh, euh, tey ngeen ñëw fii la Dior entraîné lan ngay wax. ah parce que voilà ñu ngi entraîné ci kanamu ci kanamu public bi donc euh, dara loolu dara daax ko voilà ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ci ci stade bi donc ñu ngi daal. <laughs> ñu ngi def daal suñu kéemtalaay kattan pour pour gagner match bi. non police bi police bi baax na police bi baax na trop. Ah. c'est vrai que am na am na quelques bosses mais bon. Ah. police bi moom baax na quoi donc ñu ngi essayer de de mettre euh, application bi bi bi ko waat. kon moral bi fu mu nekk nii nice. ak coono bi club bi ak. Euh, non non coono bi non non coono bi c'est vrai que dans deux jours la ñuy football. habitude enchaîner match bi am voilà première séance d'entraînement stade Lat Dior de fi ñu nar a amal match bi donc euh, mu mel ni sénégalais yëpp ñoo ngi déjà <laughs> derrière ndax gis nga ambiance bi fa am Mamadou Ndiaye te dara ambiance bu neex la démb ñu mel ni ambiance bu match la sax mhm. euh, ñu doon déggu kii di euh, Mouhamed Nabi Sarr moom mi nga xamante ni ku bees la ci biir tanière bi ak kii di Famara Diédhiou moom tamit yàgg na ci ci équipe nationale bi en tout cas dégg ngeen seen réaction ak surtout li ñu xalaat ci match ne moo nekk match bu am solo bi Euh, CAN 2021 bi fas yéene am fële ci Cameroun Sénégal Euh, Congo gannaaw ba nag dañ fay jóge bu ñu fa paree di set maanaam du yàgg dara ñaari fan ñetti fan ñu dellu fële ci Eswatini mooy ex euh, Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande <laughs> Eswatini pardon kon <laughs> gi dem jàkkaarloog ñee di waa Eswatini moom tax donc du am temps de repos du am temps bi nga xamante ne dañ leen permettre ñu mën a am pas sax séance d'entraînement bi ñu demee fële ci Eswatini donc loolu tamit ba nekkoon na ay euh, réaction yi nga xamante ni wala ñaxtu yi nga xamante ni sélectionneur bi Aliou Cissé doon na ko wax mm-hmm. donc en semaine ci loo xamante ni dinañ am datu FIFA bu doy presque dix jours donc en une semaine Sénégal euh, yenn équipe yi sax mun naa ko wax joué ci ñaari ñaari yoon Dakar ba pare dana defaat benn voyage bu gudd de l'autre bout du monde mën nañu ko jàpp fële ci fin fond Afrique war fa defaat benn voyage te loolu tamit vraiment waa fif ñi di waa CAF war nañ ci mën a gën a bàyyi xel mu nekk lu lu am solo bi donc semaine bi yëpp dañ koy def avant pendant et après le match on sera avec toi avec euh, les équipes de la télévision Futur Média équipe bu groupe bi yëpp kay parce que ñun du ñu yem ci yoon télé bi télé bi day dem rajo bi dem site internet bi dem. Mhm. King FM dem. ñëpp dem l'observateur ñëpp ci biir bu ko defee ku ci nekk indi information nga xamante ne sénégalais yi dara du leen ump ci rencontre bi nga xamante ne moom mooy waaj am fële ca stade Lat Dior di euh, préparation yi ñuy def pour qualificatif Coupe d'Afrique 2021 mi nga xamante ne man je suis certaine que Sénégal moo koy moom je très optimiste. Mm. éternel optimiste merci beaucoup Mamadou Ndiaye ci Yeewu Sport bi tey en mode marathon la ñuy demee ànd ak Merry Beye ci application bu bees bi ñu indil muy noppale ok donc euh, Bijou on y va comme tu as dit en mode marathon dañ leen di bàyyi léegi élément bi nga xamante ne moom la ñu jëlee ci étudiant bi nga xamante ne moom moo créé application bu tudd Noppale ki je le rappelle est une application faite par un étudiant et pour les étudiants on y va. maa ngi tudd Abdoulaye Faye donc maa ngi euh, créé euh, application bi ñuy wax wala solution bi ñuy wax Noppale. noppalee benn système bu bu pour étudiants yi ñuy mën di jënd ticket resto ak di fay ci restaurant yi de façon automatique parce que dañuy xool à l'université donc pour ñu jënd ay ticket pour mun a dem ci restaurant yi dañuy def ay dañuy rang rang yoo xam ne day gudd donc ñun euh, jeune ñun ñu ne ay xale ndaw yoo xamante ne nii ñoo ngi jàng ñu ngi yëngu ci affaire informatique ba pare à chaque fois problème yooyu noonu ñun ñoo koy dund ndax ñun ñooy nekkaat ci rang yi di ci sonn ñu ne pourquoi pas ñu proposer solution boo ni day tax Euh, parcours boobu noonu wala li ñu doon def chaque jour mu gën a yomb si ñun donc moo tax ñun ñu euh, ñu initier Noppale Noppale benn système de paiement automatique loo xam dañuy jël euh, étudiant bu ne am carte Noppale donc carte yi la ñuy linké ak application mobile permettre ñun étudiants yi di di di mën a recharger suñu carte di tamit permettre ak suñuy parents du ñu mën a recharger suñuy carte yi chaque fin du mois au ñuy dem du ñu envoyé xaalis bi ñuy dem di retirer automatiquement ñu def ko suñuy carte ndax suñu carte moo ñuy mën a permettre ñu mën a dugg ci réseau bi mën a rest euh, restaurer et cetera comme ni ngeen ko xamee déjà application bi dina dina tax étudiants yi ñun étudiants yi ñu am euh, ñu gagner du temps si ñu dem di jëndi euh, ticket resto dina tax tamit cours yi ak yi mën a économiser seen seen seen seen budget bi ñu doon def ci ci ci impression ticket yooyu noonu. projet boobu tey jii nii ñu ngi koy primé ci ci ci ay concours yu bari comme Jambar Tech Lab bi. sélectionné chaque année ñaar fukki produit yi nga xamante ne nii ñooy ñoo yëngu ci digital ci bépp Afrique de l'Ouest donc bokk nañ ci lauréat yooyu noonu euh, participer nañ tamit Jeune 3 e en partenariat avec l'ADER délégation l'entraînement rapide du gouvernement donc on est aussi euh, lauréat de ce programme donc ñun tamit euh, représenté nañ Sénégal dernièrement au niveau du marok donc si concours Hub Africa donc samedi bii di ñëw la ñu war a représenté Sénégal à Abidjan pour le forum international des startups et des TPE de la CEDEAO. donc fi lañ jàngee codage fi lañ jàngee lépp euh, lu jëm ci euh, informatique donc bañ paree suñu formation ñuy accompagner sur nan la ñuy mën a doxalee suñu entreprise nan la ñuy mën a euh, doxalee suñu projet donc commencement bi ba nuñ koy mën a jaayee. di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci projet ba mu toll fii tey. application noppale sup ay waay couple bi yow yéen seen génn bi du ngeen ko yemale ci en dehors de la télé tamit nañ waxante dëgg xëy ngeen solandoo seen blanc ñëw toog mais mais mais quand même bu leen ñu tympaniser ça se fait pas hmm? vous sortez on le sait vous hmm. vous aimez on le sait mais faites ça en dehors des heures de travail s'il vous plaît merci <laughs> donc application noppale une <laughs> une application faite par un étudiant pour les étudiants gain de temps parce que étudiants yi dañu soxla temps quand même pour dem seen cours yi dem amphi déjà amphi day gaaw a fees et tout ça donc <laughs> donc boo leen mayee ñu gagné plus de temps da nga leen di aider ci seen ci seen avenir. effectivement Bijou en fait c' est un moyen de démata euh, dématérialiser. Euh, li nga xamante ne ni mooy moyen de paiement yi euh, afin de supprimer les tickets. parce que ñëpp xam nañ que ne. étudiant tegal groupe bi tegal tegal tegal tegal. bul jël de ñëpp <laughs> ñëpp xam nañ que ne ok Mary demal on ñëpp xam nañ que ne étudiants yi seen problématique premier mooy lekk bi mooy dem di rang euh, euh, fii di euh, restaurant donc étudiant bi xalaat que ne application boobu dina leen mën a dimbali xëy na ñu am gain de temps supprimer lépp lu système système de paiement réduire les files d'attente des étudiants lors de leur alimentation et aussi faciliter la gestion de la collecte des revenus aussi ñi bëgg maîtriser seen dépense comme ni mu ko waxee euh, dina permettre aussi seen parents yi nga xamante ne dañu nekk dëkk ba wala feneen au lieu ñu leen di jàpp di leen yónnee xaalis nga xamante ne mën na mën na jël temps dañuy charger directement carte bi su ko defee ñoom avec la carte dañuy dem euh, mën nañ dem même seen bourse yi sax mën nañ ko dugal ci carte exactement donc c'est c'est juste en fait euh, restauration bi la ñu xalaatoon en premier mais dañu xam ne ne carte bi mën nañ ko def en déclinaison par exemple par rapport à leur bourse par rapport pour fay euh, aussi loyer ndax ñoom loyer la ñuy fay imprimer lekk ak naan waaw loolu yëpp mën na leen ci dimbali nga xamante ne dañ koy charger rek daal di dugal. léegi juste euh, euh, kii euh, bijou pour mhm. faire vite aussi une une information qui va sûrement très très très t'intéresser ça cor ça kii la ça parle de Instagram donc xam nga. mais danga may ñaawal. non non parce que dañoo pirater sama Instagram yàlla bu ma la ñaawal ay waay. ay waay ñaa yàlla bu ma la ñaawal dama xam ne li may wax dina la intéressé ah, d'accord mardi passé dama waxoon que ne Instagram dañu dañu fas yéene enlever le bouton like mm-hmm. comprendre nga léegi nag ñoom commencé nañ ko avec certaines stars yoo xamante ne États-Unis lañ nekk mm-hmm. et Nicki Minaj est entrée en guerre contre Instagram parce que buñ ko enlever ma guerre ak ñoom léegi Nicki Minaj nee na moom de son côté elle ne postera plus rien sur Instagram à partir de cette semaine Euh, pas tant que le réseau social ne remettra pas en place la fonction like sur les publications moom moom nag moom nag euh, nee na dafa nee na dafa considéré que ne waa Instagram dañuy xeex artistes indépendant yi alors que waa Instagram ñoom nee nañu c'est c'est plutôt pour permettre euh, à ce que la santé mentale des jeunes mm. utilisateurs euh, mm. ne soit pas dégradée parce que nee na le c'est une course au like euh, euh, ñëpp dañuy dem si like bi donc ñoom tamit pour préserver a dépressuriser Instagram. gis nga même bu dee euh, drogue bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser parfois mm-hmm. xale yi di ko tux mm-hmm. am na médecin bu fi ñëw ne nekkul day dofloo dafa am ñoo xamante ne dañu am ay Euh, prédisposition prédisposition à non. devenir fou. Mhm. boo koy laal di dof <laughs> bu la fekkee nga dof bu la fekkee nga intelligent t'arrives à gagner ta vie dedans nañu waxante dëgg. waaw ça c'est sûr a dit ça c'est exactement ce qu'elle a dit elle la santé mentale des ados a bon dos et elle accuse la firme et les maisons de disques de vouloir faire taire les artistes indépendants que na ci algorithme yi lañ ko njëkk a commencé xam nga euh, Instagram amoon na benn temps boo xamante ne mënoon nga dugg xam euh, sa algorithme sa entrée sortie nit ñi. Euh, kii bi ni mu demee bon ñoom en tout cas commencé nañ ko mm. dindi. kon kuñ ko dindi nag xamal ni star <laughs> gaañu nga <laughs> en tout cas à suivre. Euh, ba pare mënoo teg réseau social nit di ko utiliser et tu changes les choses sans pour autant tenir en, fait, en compte mais ñii li ñu li ñu deuxième kii bi ñu développé am na solo de <laughs> surtout ñu africain yi xam ne Nicki Minaj mooy wax parce que Nicki Minaj mais Ndiaye mais deuxième deuxième argument bi ñu joxe nañ ko xool rek deuxième argument bi ñu joxe non non attends Bijou on est très représentatif de la population nañ waxante dëgg ku mu fekk nga raakaaju da gën a raakaajuloo comme yow ma laa joxoñ joxoñu ma keneen da lay gën a raakaaj <laughs> ban adjectif da koy yokk xam yow yaa ngi ni information sportive buy wadd ngay dugal da koy yokk yow ay satu mi ngi ñëw si ñun à la de bañ wàcc la ma wax yéen. yow xanaa xamoo man école primaire ku ma ne bañ wàcc ci ginnaaw monsieur Diop laa doon bind laaxatu. man du ma génn école bi man kese moom lay àndal ba suñ buntu kër. wuy man buuba téléphone mu ngeew. wuy lay topp ba sa buntu kër. ma buuba laay woo mu ngeew ma duggee ñu tëj suñu buntu ba xam koy xeex. mais en tout cas Instagram je pense que ça amplifie la nature des gens mais c'est pas Instagram. bon après euh, pour l'instant aider la santé mentale des plus jeunes parce que euh, peut-être fii Instagram am na fi doole mais pas autant qu'aux qu'aux États-Unis ou bien mm. dans les autres pays ndax euh, c'est c'est c'est une force course en fait boo xamante ne jaral la leen ñu def lu nekk pour juste en fait engendrer ouais, plus de likes en direct pour voilà pour juste avoir plus de likes donc mm -hmm. ils se sont dit il faut c'est de leur responsabilité en fait de préserver tout ça de le responsabiliser de préserver tout ça la santé des plus jeunes. ma doo. doo kooral kay du raw doo kooral dana la dal. neen ndax que je suis douce moi. Ah wallaay wallaay gentil ma doo. léegi conclure Merry waaw loolu la léegi euh, xanaa rek euh, comme on a l'habitude de à Yeewu Tic euh, les réseaux sociaux c'est les nouvelles technologies c'est très bon mais toujours faire attention à ce que li muy li muy engendré comme euh, partie néfaste donc ñu def attention ñi nga xamante ne dañoo dof ba war a doppooral nañu fajuwaat seen bopp ñi nga xamante ne dañoo wér te ay réseaux sociaux du leen yóbbu ñu dem ci toujours nànk rek ay ñu yar suñu doom yi rek éducation boo xamante ne day éducation digitale. Mm-hmm. dañ ko soxla actuellement ça voilà ça fait partie mardi prochain dinaa la indil koo xamante ne éducation digitale lay mu éduqué ñu waaw kay loolu baax xale yi euh, wool Pape Doudou papa euh, Doudou léegi léegi euh, en attendant ñuy jàll ci Sophie dafa am waa orange lu ñu indil lu neex bay bëgg a dee nag parce que actuellement li ñu seetlu mooy nit yi bëgg nañ woote ak illimité woote pendant longtemps bañ a stressé mais bëgg nañ ko def ak réseau quand même euh, woo seen yaay waxtaan xam nga matin midi soir illimité yu bëri lañ leen indil. mun ngeen ko am ci Jazz 250 Jazz bu leen neexee bu dee 1000 francs ngeen yor di ngeen am seen ay appel illimité. am 500 méga internet ak 200 SMS bu fekkente ne yéen a ngi 1900 mun ngeen am 250 euh, minutes am seen 2 euh, giga am aussi 200 euh, SMS euh, nee nañ nag bu ànd ak réseau moo gën waaw kay. bu 5900 bi nag yaakaar naa ni mooy gën a neex ñëpp actuellement ndaxte moom ay appel illimité la 900 minutes ngay am 14 giga internet pour connecté wu fu mu la neexee saa yu la neexee connexion bu dul teg ak aussi SMS euh, moom moom mooy offre phare bi actuellement kon orange li ñuy wax nee nañ bu ànd ak moo gën. Hmm. waaw kay dem leen orange ngeen euh, inscrire ci offre illimité yi nga xamante ne ñoom la ñu def actuellement 1000 euh, francs 1900 wala 5900 am na yeneen i offre yoo xamante ne leen ko indil leen ko présenté pendant tout la semaine pour ngeen xam Orange lan la nar a nekk di def ak yéen mais ak réseau waaw kay <laughs> Sophie dama ci orange bi ngay préparé. na nga ko waxee baax na. ok waaw kay. <laughs> waaw bisu. ko bàyyi leen ma mooy toog ngeen ko lii lan la. waaw kay xaadim jël ma jël ma xaadim. waaw orange bi nii. Mhm. ok xaaral ma njëkk ko dagg en rondelle comme que dama koy utiliser ci kanam. daggee ko nu mu la gis nga nii rek orange bi ñu dagg ko nii. voilà ma tegandi de côté. Euh, déjà nii bisu ñu yeggali rek li nga xam ni mooy cocktail bi ñu leen andil tey mu nekk benn cocktail boo xamante ne ni dinañu mën a accompagner parce que période bi tàng na tàngaay boo xamante ne dafay laaj euh, nga lekk nag lu sedd loo xamante ne ni dina la mën a jàppale. <laughs> waa kii wuy ma sécurité Père Assane dimbali ñu rek ngir yàlla na fi jóge waaw kay na dem na le ba ci kanam waaw léegi nag euh, cocktail bi ñu leen di proposé gis ngeen nag euh, sànq wanoon nañ leen li nga xam ne moom lañ am tey muy euh, sorbet mangue ak sorbe fraise am nañu pêche nag am nañu li nga xam ne mooy pomme gis nga nag pomme bi mu ngi nii dama ko jël daal di koy relever ci sucre bàyyi ko ci nag ba nga xamante ne ni boo koy lekk dafay dafay nekk ci diggante entre ñor ak ñorul day croquant ñu am fii li nga xam ni mooy pêche pêche bi nag moom it damay ñëw rek daal di koy sotti mu fekk ji li nga xam ni mooy pomme bi ñu sauté légèrement rek ak euh, sirop pes bi ak euh, deux cuillères à soupe de sucre kese la ñu ci def parce que glace yi dafay am euh, sucre moo tax ñu yemale suukar bi bu baax a baax a baax déjà nii damay rek jël benn bouchon wu essence vanille su ma paree aussi ma rek daal di jëlaat tuuti rek ci fleur d'oranger bi daal di koy relever moom nag c'est facultatif bu la neexee nga def ko ci bu la neexee euh, bu la neexulee doo ko ci def euh, mais euh, boo ko ci defee du ci yàq dara ndax dina parfumer li nga xamante ne nii mooy sa plat bi nga xamante ne nii moom ngay defar déjà ni gis nga pomme bi ak pêche bi moom laa mélange ni suñu paree nag dañuy ñëw rek daal di jël suñu coupe bi nga xamante ne nii ci la ñuy dressé li nga xamante ne nii mooy euh, suñu cocktail bu tey bi parce que euh, lu nekk dafa am ci nga xamante ne nii ci nga ko war a def parce que coupe bi moo nekk euh, coupe à dessert boo xam ne boo ko ci defee gis nga bu transparent la nit ki de loin dafay séen li nga xam ni moom nga def ci coupe bi te loolu rek déjà ça donne envie de manger déjà ni su ma jëlee li nga xam ni nag mooy sorbet mangue bi laay jiital daldi koy def ci fond ouvert bi daldi di ciy def nag ba mu doy gis nga bu ma jiitalee mangue bi voilà damay rekk ñëw jël ci pom bi ak pêche bi su ma faree fii aussi am naa fi li nga xam ne mooy sorbet fraise bi moom it damay ñëw rekk daal di teg ci kaw daal tibbaat beneen cuillère bu généreuse moom it daal di teg mu nekk benn cocktail bu simple boo xam ne mën nga ko reprendre sa biir kër te doo ci am benn problème gis nga nii rek teg sorbet bi ci kaw am nañu fi vermicelle multicolore moom la ñuy jël rek daal def ci kaw suñu paree am nañu orange moom it dañu ko daggoon en damay ñëw rek def benn trait daal koy teg fii am naa fi aussi anana voilà moom it ma ñëw rek teg ko nii ci wetu li nga xam ni mooy orange bi ñu continuer waat ak beneen coupe bi moom it damay jiital li nga xam. Mm-hmm. waaw tàngaay bi wala seddaay bi wala à tout moment mën nañu daal waaw mën nañu bëggee daal. waaw xam nga xam nga dessert moom de préférence tàngaay bi nga koy gën a soxla parce que tamit euh, euh, tàngaay bi su fekkee ni comme sorbet bi ñu defar nii sedd na neex na boo ko lekkee rek di nga ci gis euh, mu andil la fraîcheur am na tamit période du seddaay bi bu xam nga sedd boo demee resto doo jël glace wala dara da ngay jël beneen soit nga jël. Euh, da ngay jël chaud waaw pardon dégguma egsi ma ne seddaay bi parce que tàngaay bi ngay jël ay glace ak yooyu nga xamante ne ni dalay aidé bu baax a baax gis nga nii rek ñu jëlaat li nga xam ni mooy euh, fruit pêche bi rek ak pom bi bu la neexee tam mën nga ko changer soit nga def melon wala nga def euh, papaay ñu ñëw rek jëlaat ci li nga xam ne mooy sorbet de mangue bi moom tamit daal di koy teg ci kawam. suñu paree tamit jëlaat tuuti ci vermicelle multicolore yi daal di koy saupoudrer mu génne couleur bi voilà gis nga nii rek ñu daal di ñëwaat jël orange bi moom it ñu dagg ko en rondelle nii rek daal koy teg ci côté bi am nañu aussi anana moom it ñu defaat même chose gis nga nii rek attention la moom ñu daal di koy teg nii à côté gis nga nag euh, nii rek euh, bisu moo nekkoon dessert bi ñu leen andil tey mu nekk nag euh, benn dessert bu simple boo xam ne du la jëlal benn yoon temps parce que sorbet bi bu la neexee nga defar ko sa kër jël mangue bi mixé ko bàyyi ko nag mu dugg ci congélateur bi bu la neexee nga jënd ko ci grande surface yi nga xam ne fruits yi rek ngay revenir te bu fekkee tamit fruits yi bu la neexee mën nga ko bañ a revenir ci li nga xam ne mooy ci poêle bi comme man ni ma ko def mën nga teel a dagg fruits def ci tuuti sucre vanillé def tuuti fleur d'oranger bàyyi ko nag mu dugg ci ba nga xam ne fruits boo koy lekk dafay am goût su ko defee nag nga daal di koy jël super jël 30 heures <laughs> gaaw ah wasalaam et <laughs> bleu parmi nous. ah bon koo xamante ne ah D'accord. Cordon bleu. Hein, D'accord. Euh, voilà, il, il, il, il est. Ah. ni ñëwal ni ñëwal ni ñëwal ni waaw. il faut que mu ñëw coaché la. di lool dina ma neex. il faut que mu ñëw coaché la. loolu dina ma neex jox ko la ay petits tours yu sew. naa ngay mettre en valeur. Mhm. suñu produits locaux yi. c'est vrai. donc c'est très très très kon kon kon. nga instant mhm. am nga glace euh, am na glace solo. am na glace sump. ah yëpp am na. waaw am na ay sénégalais yu la ak di tax yi. waaw yooyu yëpp. glace di tax léegi Sophie bi mu ñëw defal ñu benn merci léegi vendredi mën nga ñëw. waaw vendredi incha allah dinaa ñëw. invité naa la vendredi mooy nekk sama invité. xaar leen ko waaw. waaw kay. Ah? vendredi. incha allah ban ban jour. ñëwal suba Chef Tamsir d'accord Chef Tamsir semaine bi on va t'inviter tu vas nous ah préparer quelque chose inchallah Tamsir c'est super merci on adore tes donc euh, man dinaa ko ñëw déguster inchallah nga xamante ne pêche yi la gën a bëree ah d'accord maa ngi ñëw maa à tout à l'heure ce sera tout à l'heure il nous reste quelques minutes pour finir tout ça euh, dañuy ànd ak Mado rek en mode accéléré mu waxtaan ak ñun ci tendance on accélère on accélère la cadence. wala ñu kii ko ba demain. ah am benn problème merci madame. non <laughs> c'est intéressant boo ko daggee ci sa. ah waaw waaw waaw c'est bien mhm. on on laisse. <laughs> on laisse on va faire euh, euh, du du yeewu culture oui euh, parler du livre et puis de l'agenda culturel avec Aïssatou Paye Fall. waaw léegi euh, Bijou dama la proposer ñu jël gan yi rek. wax. après ma bërëxal tuuti affaire yi si des. waaw le temps que waaw comme ça euh, tam madame vous pouvez venir. ñu buruxlu. <laughs> mun ngeen ñëw ñu buruxlu. voilà donc euh, grand carnaval de Dakar la ñuy ñëw waxtaane ñaari fan lañ ko nar a amal du 22 au 24 novembre ñi fi teew nag pour waxtaan ñu si xew-xew googu nga xamante ne ñi ngi koy xaar muy madame Fatou Kassé Sarr bi nga xamante ne moom moo initié événement boobu ànd ak euh, Tamsir Ndiir bi nga xamante ne defe naa ne ñu bëri mos nañu loxoom foofu la sa institut français de Dakar donc ñoom ñoo nar a ñëw fii waxtaane ñu li nga xamante ne mooy xew-xew boobu nga xamante ne dina valoriser promouvoir suñu ay ressources suñu ay ressources naturelles suñu ay togg gastro gastronomie sénégalaise gastronomie euh, des terroirs wane itam aada ak cosaan ci wàllum euh, yére ci wàllu lépp li nga xamante ne moom mooy façonné ñun suñu culture euh, bi nga xamante ne moom la ñu am fii Sénégal. carnaval de Dakar voilà grand carnaval de Dakar ñu àndar ko amal ci ñaari fan. Tamsir Ndir ñëw di si waxtaanal ak madame Fatou Kassé Sarr. Ah, il y a Stéphane, Monsieur Stéphane Senghor qui vient à la place de Tamsir. <laughs> non, Tamsir, il revient dans la semaine. Tamsir, tu reviens dans la semaine. D'accord. waaw Fatou Kassé ñu ngi lay dalal euh, yow ak Stéphane euh, temps bi nag bëriwul ngeen wax rek euh, carnaval de Dakar bi lan moo tax ngeen initier ko ak naka la nar a demee programme bi ak yëpp ak lan moo tax ngeen tuddee ko le grand carnaval de Dakar joxu leen ko beneen tur. alors merci beaucoup tout d'abord maa ngi leen di nuyu euh, yéen ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yi donc euh, di leen wax ne ñu ngi leen di xaar donc du 22 au 24 novembre pour le grand carnaval de Dakar euh, fii ci place de la nation ñuy wax obélisque donc grand carnaval de Dakar lan la grand carnaval de Dakar c'est une fête des cultures et des tradition maanaam mooy dañuy feete suñu diversité culturelle mm-hmm. ak suñu cosaan pendant trois jours Euh, dañuy wane place de l'obélisque un peu euh, diversité des peuples du Sénégal sur un village du carnaval boo xamante ne on va y trouver euh, costume traditionnel yi masque yi maanaam mooy ay kumpo ay euh, simb gaynde càkkaaba <laughs> am dañ ci am tam ay instruments de musique mm. voilà ba pare dañ ci am tam benn village artisanal bu ndaw Euh, bu ñuy monter ak euh, le collectif des artisans du Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, yoo xamante ne ñu wane seen savoir-faire. Mm-hmm, donc ensuite deuxième jour bi. mooy le jour de la parade. parade bi nag mooy boulevard général de Gaulle ñuy wax allée centenaire. parade bi toujours pareil diversité des peuples. ñu jaar ci ay camions plateau ñenn ñi nekk troupe au sol. daal di wane mooy li ñu doon wax sànq rek culture tradition bi de manière festive. donc dernier jour bi euh, bon dañ am benn euh, petite activité euh, bu ñu tuddee ceebu jën donc moom la Tamsir sax di piloté. di piloté waaw ah. Ah, ah. bon pour wane rek. ceebu jën valoriser ceebu jën. peine de mbay dañuy ñëpp dañuy ñëw togg toggandoo ceebu jën. day am kuy togg ñeneen ñi di am parce que bu dee ñam am na moom man je peux venir. Ah, waaw yow man sama kàll ay sàll la en fait boobu c'est sur invitation parce que mm-hmm. dañuy invité institution yi mm-hmm. invité euh, surtout ambassades yeeg représentation consulaire yi mm-hmm. au de la renaissance daal di wane un peu art de ba mu rafet tegee ko ni ñu koy lekkee fii Sénégal Euh, ba pare defar ay coin ataaya ak ay affaire yu yu mel noonu. daal ba pare nag dañuy valoriser riz local bi parce que ceebu jën Penda Mbaye bi. Euh, Sénégal euh, ci kaw sa vient du nord. Mm-hmm. te am nañ riz local tam bu jógee foofu bu ñu ñuy offrir muy mairie Ross Béthio. d'accord léegi nag lii tax Stéphane nekk fii sama wet tey. Mm-hmm. mooy ne que Stéphane suñu partenaire la. on a tenu un petit peu à avoir un engagement zéro déchet. parce que événement bi dina indi ay nit dina am euh, li ñuy wax food court euh, maanaam euh, dañuy jaay lekk ak naan ak loolu yëpp donc bëgguñu événement bi bu jeexee déchets yi des foofu donc looloo tax tey mu nekk man ci plateau bi. peut-être qu'il va en parler. il va en mhm. parler mhm. justement. Stéphane. Euh, en fait, euh, objectif zéro déchet bis, c'est un objectif pour s'assurer que le carnaval ait le minimum d'impact environnemental. Mm -hmm. Parce que Gisnayne, la plupart du temps, boit mais événements, euh, même dans notre consommation de tous les jours, des nuits baïch, des guinao, des déchets Alors que nous avons prévenir au départ. Mm -hmm. Donc, si je regarde un plateau, par exemple, si je regarde un tassi, comme vous dites, tous les matins, <laughs> normalement, vous avez des tasses réutilisables.

cinq fois dans l'année si vous le faites, alors à un moment donné, la tasse réutilisable est beaucoup plus, c'est beaucoup, beaucoup moins euh, évident pour vous. D'accord. Euh, euh, production, à partir de demain, on veut des tasses réutilisables. Des hier ou zéro déchet. Zéro déchet. donc ce sera le cas dans l'événement. Qu'est-ce que vous allez faire Des plats réutilisables, bien d'utiliser, des plats vous venez tout comment ça va se passer l'idée, ce sera de travailler avec tous les prestataires pour mhm. voir comment est-ce qu'on peut la réduction de leur impact. Mhm.

wane li nga xamante ne ñun moom la ñu moom la ñu loolu moom la ñu war a lekk mu sell moom nga xamante ne moom mooy def la beauté du Sénégal mm. euh, jaay suñu ay territoire jaay suñu ay territoire wane ethnie yi nga xamante ne différentes ethnies yi am ak ku nekk li nga am ci mën-mën ci ci ci ci lu rafet li nga xamante ne mooy def particularité du Sénégal donc on se donne rendez-vous du 22 au 24 novembre ñun ñëpp au grand carnaval de Dakar su ma ci mënee yokk benn baat rek waaw dama fàtte euh, préciser ne cette année dañu mm. mettre en avant benn euh, ethnie minoritaire mu tudd Kognagi yi donc principe bi mooy ñu ñëw qu'on mette le focus sur eux mm-hmm. tout le monde sera présent diversité bi yëpp dina fi nekk mm-hmm. mais dañuy gën a pousse mettre leen en avant ñu wane un peu seen aada wane ñi ñuy lekk ak loolu yëpp d'accord les cognats gi <laughs> merci beaucoup d'être passé sur ce plateau euh, ci euh, yeewu culture bi donc rendez-vous au grand carnaval de Dakar pour plus d'informations di ngeen dugg suñu site internet yi pour am on finit très rapidement avec rapidement oh, je parlerai même pas de livre on va attendre mardi prochain ci mhm. kattanu suñu borom euh, on va juste parler rapidement de la journée africaine journée internationale de l'écrivain africain donc temps bi dafa gàtt donc tonton Aline Badara Bey yàgg ko initié nekkoon 27e édition bi démb ñu ko doon tëj foofule sa kër Birago sa sa point E donc euh, écrivain africain yëpp tase fa ci wàllum poésie ci wàllum bind ci euh, lépp loo xamante ne mooy xeetu littérature africaine mu nekk ndaje boo xamante ne ay africain ñooy daje jaay li nga xamante ne moo di téere ñu xam lépp lu téere di def ci doomu aadama ci wàllum jàngat ci wàllum ibbi xel ci wàllum yokkute ci wàllum développement ci lépp pàcc boo laal daal téere am na lu mu siy def donc ñoom ñu daje ngir gën moomu gën a defaat promotion du livre mu nar a tombeel ak li nga xamante ne ñu ngi koy waaj a euh, pare muy foire internationale du livre mi nga xamante ne moom it si weeru novembre balaa weeru novembre bi di jeex wax nañu ko amal donc euh, bijou loolu laa si wax ñu joxante rendez-vous si journal télévisé incha allah loo xamante ne daañu waxaat si euh, journée internationale de l'écrivain africain boobu ci wàllum agenda culturel. on a un élément pour la journée africaine de l'écrivain. ah oui tonton Alioune Badara Bey comme on va peut-être mettre ça voilà on va mettre ça ça am na lu mu wax ci invité bi nga xamante ne mooy euh, invité d'honneur bi nga xamante ne Gambie la woon mu am lu mu wax si réewum Gambie diggante réewum Gambie ak Sénégal ñu teew teewlu tonton Alioune Badara Beye ñu dellu si waat ci plateau bi. parce que li li ma ko wax ci ci rek dañu bokk lépp ñaari dëkk la ñuy wax Gambie ak Sénégal waaye loolu colon rek moo ko colon ñoo ko indi ndax indi seen langue yi mu séparé ñu waaye benn peuple la ndaxte. làkk yi ñu làkk fële la ñuy làkk fii jàng yi ñuy jàng fële la ñuy jàng fii ñoo bokk suñu histoire ñoo bokk suñu géographie mu te aussi teg si ni suñu ñaari président yi ay xarit lañu ñu bokk même politique di jàppalante donc dafa rassurer ñaari dëkk yi ñun nag écrivain yi ay citadelle de la liberté dañu war di yombalal loolu tax voilà ñu doon déglu euh, Alioune Badara Beye ci euh, journée africaine de l'écrivain mu doon ñëwaat ci invité d'honneur beeg euh, yi mu yi nga xamante ne mhm. moom moo tax ñu jagleel ko journée bi. waaw Gambie mu dafa dellu si si wàllum réewum Gambie ñoom sax la ñuy jël jox ko xam nga dafa ay pri yu bari yoo xamante ne dañ ko joxe xam naa ñu leen mun ni lim yëpp. Mhm. ñu jox réewum Gambie la ñuy taxaw muy Birago d'or bi nga xamante ne jox nañ ko gombien bi di Mamadou Tangara ak yeneen prix yoo xamante ne jox nañ ko Amidou Sall. Euh, ak euh, Amidou Sall moom moo am prix théâtre Amadou euh, Cissé Dia ay Thierno Omar Bari nga xamante ne moom la ñu jox prix de la reconnaissance bu Bernard Didier euh, ci wàll bi waxtaan nañu ci wàllum problème édition wàllum circulation livre yi am na pàcc yu bëri yoo xamante ne laal nañ ko mais danaa si dellu si waat incha allah. merci beaucoup Aïssatou à mardi dans Yeewu Culture pour euh, yeneen information culturelle ak aussi agenda culturel bi dañuy continuer très rapidement ak Excidex mu ñëw ci événement yi. nga xamante ne moom la ñuy wàcc ci mois de décembre bi ak aussi euh, son du jour. voilà merci beaucoup à Bijou donc comme ni nga ko waxee euh, tey dinañu euh, dem justement féliciter encourager aussi Dip mais juste une petite remarque par rapport à à à Fancy ah li ñuy li ñu gën a waxal. que il est temps quand même bu artiste defee liggéey bu rëy ba ñu ko euh, boole ci benn catégorie qu'on ne soit pas euh, sectaire wala di farak nañu xalaat ne c'est pour la musique hip-hop wala musique mbalax wala je sais pas n'importe quelle musique mais c'est pour le Sénégal qu'on soit patriote à chaque fois qu'on aille voter exactement que ñu ah. tàmm bu ñu xool ne man Dip laa bëgg wala Awadi laa bëgg ah. wala Dégui loolu dañ ko tegee ne le dès qu'un Sénégalais est nominé ñun ñëpp nañu manko dem euh, votel ko ndax loolu mooy permettre tey et partager aussi excited ça ne nous coûte rien partager voter quand un truc est positif on dirait que bouton partage bi day réer si seen réseaux sociaux parfois dañuy ay cinq partage quand c'est positif partager voter quand Dip gagne c'est pour le Sénégal quand Dip sort d'ici il représente le Sénégal c'est positif. Partagez, votez, partagez, votez. On va répéter pour que ça Partagez, rentre. votez quand partagez, il s'agit de votez. quand il des autres, quand il s'agit des autres, quand c'est tout le Sénégal. Solidarité parce que quand il s'agit d'un truc négatif, euh, affaire bu négatif dañ koy partager très rapidement. Ça devient viral Oui. Donc faites que quand c'est viral aussi. Exactement. Et ça oui Ndiaye nga ne. Mais loolu la loolu la société boo xamante ni toujours bu bonee gars yi partagé li nga xamante ne mooy information négative. mais c'est dû à quoi finalement mais loolu léegi nag loolu non non non c'est juste maintenant c'est nos fonctions ba la limite bu demee boo waxee dara lu positif ci nit rek da ngay yaakaar ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw or nit ki doo ko sax xam parfois mais juste patriotisme wala di wane sa appartenance wane ne fierté euh, sénégalais la que ça soit mu nekk ci domaine yëpp en sport politique wala dara bu sénégalais amee beneen raay fële Aïssatou koy décorer en France wala dara mais c'est le Sénégal muy yegg ci loolu xaw ma Aïssatou damay partagé wala bu ñu fekkee ñu ne la mooy ne même s'il a ay ay ay ay quiproquos. Mhm. bu ñu xool nit En fait, je, je trouve que le truc qu'on a en commun, le dénominateur commun, c'est le Sénégal. Mmh, c'est comme quand on parle foot, c'est juste un exemple que je donne. Ouais. Quand on parle football au Sénégal, dénominateur commun, mais moi, ligne bok, faut que nous fassions C'est le drapeau sénégalais. Parce que t'es une nièce, diop, niaïs, euh, sale, la sante quoi. Mmh. Donc, comme tu dis, c'est la solidarité. Partage acquis, mais l'union, solidarité entraide mooy dafa am solo ba nga xamante ne et je pense qu'on a tout perdu. si si si ay ay affaires voilà c'est quoi la solution pour ñu am ko. c'est dommage il faut penser Sénégal mm. avant de penser soi-même l'intérêt il est l'intérêt il est commun est-ce que ñu wax rek. def en fait ça plaisir en pourquoi ça me plaisir ngeen di wax. en fait ci musique ak mhm. li ngeen di xalaat parce que loolu moom mooy euh, mooy doxal yëf yi quoi c'est pas que man may wax mhm. mais c'est important aussi ngeen wax aussi li ngeen di xalaat et je pense que ni ñu ñëpp dañu tirer pour si euh, vers la même direction mhm. léegi euh, comme on dit on reste toujours di yéen Sénégalais yi patriotisme jusque dans l'âme di il nous plaît et c'est pas pour rien qu'il a été nominé on regarde la vidéo et juste après on revient intérêt commun il est super talentueux il prépare le stade donc ñun ñëpp dinañ fa dem en tout cas prochaine fois partagez et votez. voilà donc qu'on <coughs> félicite qu'on encourage et loolu nag dañ bëggoon cofaale rek très rapidement c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Sadio Mané il paraît que parmi les entraîneurs euh, africains il y en a que deux qui ont voté pour lui c'est une honte c'est aberrant loolu lu mat ñaar mhm. rek ñoo ko voté ñaari africain ñaari trophée trophée je la woon non waxoon nañ fi joxe woon nañ fi chiffres yi ci ay capitaines yeeg sélectionneurs yi ñooy ñooy ñooy ñooy voté d'habitude mhm. mais loolu bon c'est c'est c'est africain bari 54 états 50 mën nañu wax 54 états nombre nombre de votants yi mu am ci ay 12 euh, vraiment c'est c'est wane ni que loolu la rek en tout cas bu ñu bëggee dem daal dinañ gën a bëggante suñu biir gën a jàppalante suñu biir Sénégal d'abord ensuite Afrique ensuite on ouvre si bopp nit ñi. dina am objectivité mais toujours nga privilégié joxe joxaale cër bu mat wala nga joxaale importance bu mat li nga xamante mooy sa appartenance. mooy li dafa dafa dafa fi nga bokk dafa nekk lu am solo. Mm-hmm. parce que yeneen dëkk yi ngay gis ñu bari léegi dañoo ñàkk culture. ñenn ñi nga xamante yenn débat yi moo fay xew dañuy ñàkk culture dañuy ñàkk fi nga xam ne mooy wéeruwaay. donc ñun ba tey je pense ñu ngi am suñu culture suñuy tradition di ngeen gis lien bi nga xamante ne mooy permettre ñu mën ko votel et mhm. incha allah euh, euh, rendez-vous après et si le Sénégal maintenant ñun ñëpp dañu booloo pour voter ko on verra les résultats forcément euh, ndam bi fii la jëm en tout cas on le félicite et on l'encourage rendez-vous sur sa page Facebook Nit Dof show of the year donc à Dakar boobu tamit di benn date boo xamante ne ce sera le 20 décembre au stade Iba Mar Diop entrée francs Euh, jour J 3000 VIP 5000 mën ngeen def seen ay réservation léegi ci numéro téléphone bi di 77 237 237 70 70 wala 78 149 89 72 donc 237 70 70 def leen seen ay réservation léegi ce sera au stade Iba Mar Diop le 20 décembre incha allah bu date boobu jàllee nag incha allah ce sera le 29 décembre foofa euh, ci Paris à la Bellevilloise euh, lay am incha allah donc. suba dinañ ñëw andi détails tout cas mën ngeen def euh, seen réservation yi demain on reviendra vous donner maintenant euh, jox na le numéro de téléphone bi du 77 237 70 70 euh, entrée 2000 jour J 5000 Euh, VIP 5000 bijoux. sinon le 24 décembre aussi El Hadj Keita. El Keita waaw incha donc mi ngi foofu grand théâtre demain dinañ ñëw wax leen euh, yan numéro ngeen di mën a woote pour def seen réservation euh, incha allah sans oublier aussi la date de Carlou décembre 15 ans de carrière au grand théâtre sur ce on vous dit au revoir et à demain. alors.